waaw gannaaw bu ma nuyoo Mouride Info d'abord damay leen di féliciter par rapport ak initiative bi ngeen am euh, le fait que ngeen xalaat euh, maanaam delloo njukkal ay ay ay ndaw yoo xam ni dañu nekk ci dëkk bi di liggéeyal dëkk bi euh, yàlla def nag kii ngeen nominé comme jeune espoir muy Khadim Tall ku ma xam la ku ma miin la ndax yàlla def na dama nekk ndoon ak moom ci PDS. li ma mën a wax ci xaadim mooy d'abord xale bu yaru la xale bu am teggin la xale bu xam kilifteef li ma marqué ci moom au temps bi ñu nekkee UJTL mu nekk chargé des élections dafa ñëw moo ma njëkk a ñëw wax ma ni ma EG dama benn programme bu ñuy bu ma bëgg ñu def ci saam boobu ñu ngi préparer conseil départemental ma ne ko xaadim loo ci jublu mu ne ma pour ñu gagner opposition pour ñu gagner APR il faut que ñu dem ci zone yi nga xam ne mooy zone périphérique ma dem gis sëñ Fallou Mbacké autant président conseil départemental mu jox ma 200000 ma jox ko xaadim def ci travail bu remarquable te yàlla def it bi ñu nekkee UGTEL it ñu reconduire ko loolu UGTEL ñëpp déggoon na coow li fi amoon rivalité su ma diggante ak Mamor sama xarit ma koy nuyu de passage mais xaadim ni man assemblée générale bi taxawa bi parti bi reconnaître moom ci dynamique gu parti bi la mës a dox ni bàcc soog mi ñu jiital parti bi reconnaître ko man foofu laay àndal nit ñi dañ ko doon wax naan ko danga ragal bàcc yu mel noonu mais xaadim c'est quelqu'un boo xam ne tey bu nekkoon tey ci wàllu administration jàpp naa ni Sénégal dina dina jëm kanam parce que lu këyit teg wala lu dëgg teg moom da ciy dox yàgg topp nag kilifteef man daf ma déggaloon du def dara ci PDS au temps te waxuma loolu nag tey jàpp naa ni moo commencé feeñ ndax it loolu leble rek lañ lay fay. xaadim lii mu am il mérite parce que tey ñëpp xam nañ ni élection présidentielle bëggoon nañ xaadim taal parce que union des karimistes moo ko yor ànd ak ay jeunes yu engagé ba pare li politique soxla mu koy def di dafay activité di wane boppam ba yàlla def mu dugg secrétariat national dañ koy ñaanal parce que tit euh, li may wax rek mooy muy APR di PDS politique moo xaw nu nu mu bindoo kenn mënul wax ni si langue gi rek ngay teg te li am solo mooy ndaw dëkk bi la nañ ko jàppale bu yàlla defee moom it mu ñëw ci pouvoir ñun ñi li ñuy def mën na def lu ko ëpp man je salue sa constance Khadim il est fidèle il est loyal parce que tey jafe na Karim Wade ku naqaree jàppale la si dëkk bi am leader boo xam ni dafa nekk kaso ñu génne ko exile ko ak lu mënti xew lépp mais xaadim loo wax xaadim karimiste la ñuy wax donc dañ koy wax nag ni ko fi mu teg tànkam foofu la ndax euh, nit ñi moom buñ la mënee wax ni da ngaa yaru wala da baax loolu chance la man jàpp naa ni il mérite tey mënoo génne ndaw boo xam ni tey si département bi je pense que ni bu tolloo xaadim Tall at gën ko yëngu xaadim il dans le dans le conseil communal de la jeunesse xaadim il est dans tous les mouvements de masse yoo xam ni ndaw daf koy daf koy loolu ba pare nag nekk nit koo xam ni nag dafay promouvoir jàmm si si biir si biir ndaw ñi doo ko dégg mu wax lu ñaaw kilifa mosoo ko dégg mu saaga kenn buy def émission ñëpp bu ñu duggee dañuy apprécier positivement ses propos xaadim daal li ñu koy mënti wax mooy politique yi nag dafa bari ay étape étape bii mu toll na gën a dëgëral boppam bañ a naagu nekk ci gëm-gëmam te nag tey déglu boppam parce que nag nit ñi moom boo leen di déglu seen xalaat rek la ñu tax mais yow logique bi ngay dox. ak fa nga jëm yow yaa koy prôner sa bopp ndax nit ku nekk yow yaay wax naan fii laa bëgg a àggale sama bopp nag xalaat yooyu bu dee nag cent cinquante yi dee ko décider sa bopp cinquante yi ci des na nga koy partager ba pare nga sende mais en tout cas daal vraiment choix bi man je dis que ni tey bu ma doon voter je voterai pour Khadim Tall kon tey nomination bi yal na ko jik yàlla na ci ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy teral at mu jot parce que ti département bi ñoo ko bokk te lii ti day encourager bépp ndaw boo xam ne dangay ngay politique parce que tey bu ma neexoon ni bokk maak moom langue politique am na yeneen jeunes yu ràññeeku mais nag wax dëgg yàlla bu nekkee un jeune féete ci opposition bi dama koy ñaanal di ko wax lii nag yàlla na ko jig parce que man loolu la ma ji ndax dafa mës a am yéene si man yéene gu am si man rek am naa ko si man sama rakk la sama xarit la nii may wax yow damay jokkoo ak moom damay waxtaan ak moom day nar dara sax ci wàllu bi woo ma ni ma SG ba tey du ma wax bàcc soog SG rek la may wax mënuma SG dama bëgg def nii dama bëgg a def naa ma ne ko xaadim defal nii defal naa bu ma déggee sax dara loo xam ne dafa war a ñëw dal si Karim si moom dama koy wane ko ah xaadim ñun kat ñoo féete pouvoir waaye lii ak lii moytu leen ko lii ak lii bu leen ko wax loolu daal moom vraiment lu lu lu ma mën a seede la